mooy euh, dafa mel ni que ni euh, dañ fi am lu ñuy wax solution paracétamol nit boppam day metti ñu ne ko jëlal paracétamol biiram metti ñu ne ko jëlal paracétamol bëñam metti ñu ne ko jëlal paracétamol sans ñu xool lan moo indi mettit bi tant que defuñu loolu tant que yaruñu nit ñi ci yenn jikko yi dañuy nekk toujours xëy nekk ñu ne journée nationale nañ ne set setal journée nationale nañu bàyyi lii journée nationale nañu bàyyi lii or pour ñun yëf bi mooy naka dañuy saytu d'abord xool lan mooy yàqu-yàqu bi lan moo ko indi nan lañ ko war a mën a jubbantee loolu noonu nag moom moo ñuy met dëgg-dëgg ñu wax ni ah bopp biy metti bii de siburu la wala bopp buy metti bii de oculaire la wala bët bopp biy metti bii de tension artérielle la loolu moom mooy man lay mel nag nga mën a indi saafara boo xamee ni que ni dëgg-dëgg moom mooy faj jàngoro bi